asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum 94 Walfu euh, Sénégal seen actualité question réponse dellu si waat nañ di ànd ak yéen ci seen actualité question réponse Ibrahima Kaka lañ ci àndal voilà mu nekk nag euh, seen actualité lépp loo xam ne rek actualité la xew ci réew mi dinañ ci ñëw sunu question ak réponse voilà euh, ñu ñëw ci Ousmane Sonko mi nga xam ne delluwaat na ci grève de la faim bi. waaye balaa boobu rek dañuy bàyyi Ibrahima Kaaga ñëw nuyoo bu ko defee rek ñu ànd dugg ci euh, euh, question réponse yi jaajëfal na leen nag bu baax siyaar nañ leen ànd leen ak ñun saa su nekk rek ci sunu actualité question réponse voilà dellu siwaat nañ fii ci yenn actualité question réponse ah, Ibrahima nuyu nañ la bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax voilà seen euh, actualité question réponse nag tey ki ñu indi ci tableau bi sunu technicien dañu ko tegal ci tableau bi mooy Ousmane Sonko mi nga xam ni nii dafa delluwaat ci grève de la fin wax dëgg yàlla yaakaar naa ne nag euh, kon euh, moom Ousmane Sonko delluwaat na ci grève de la fin lan moo tax loolu Ibrahima laaj na la lan moo tax euh, Ousmane Sonko dellu ci grève de la faim bi su ko defee nga indil ñu ci ay réponse waaw yaakaar naa ne Ousmane Sonko gis nañ ngeen ko gis ngeen ko. mu ngi noonu ci euh, table bi sunu ginnaaw waa xam nga Ousmane nag euh, day jàppale ay jigéen ñoo xam dañoo nekk fële ci Tamba dañ doon def xiifal te ku nekk xam ne euh, ñoom ña nga fa te Ousmane Sonko tax xay na mu jàpp ne moo tax mu leen di jàppale ci loolu ndax Ousmane moom bàyyi woon na grève de la faim bi mais delluwaat na ci léegi nag aywa réew mi fii mu toll nii ah wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ne yaakaar nañ ko te li des ci élection yu bariwul. Eh, jàpp naa ne daal eh, eh, war nañoo gën a muñ bu baax a baax a baax xam ni yàlla moo fi nekk ndax yaakaar naa ni sénégalais yi moom fàttewuñ ko benn yoon wax dëgg yàlla loolooy dëgg voilà lan moo tax kan mu delluwaat ci grève de la faim bi voilà xëy na bëgg jàppale rek mbokkam yooyu noonu ndax xam nga moom jàpp na ni moom ku ànd ak moom ku nekk rek nekk ci ay fitna da bëgg a jàppale ci lépp voilà Ousmane nag kon mu ngi noonu dellu na ci grève de la fin bi. kon nag yaakaar naa ni euh, Ibrahima Kaka euh, loolu daal euh, lañ doon indi ci Ousmane Sonko léegi su ko defee rek ñu dugg ci laaj ak tontu laaj ak tontu waaw Ibrahima noo gisee jikko yi jikko yi ni ma ko gisee mooy xanaa yàqu nag léegi lan mooy solution bi nag xanaa solution bi mooy tàggat leen te yar leen ndax tàggat leen te yar leen danañu ci génne ah waaw waaw danañ ci génne kay ndax boo leen tàggatee yar leen loolu mën nañu cee génne ah kon baax na waaw noo gisee ndaw ñi soobu nañu ci internet beeg doole de noo leen gisee nag ah ni ma ko gisee de ko népp gisee rek ndax soobu nañ ci internet beeg doole waaye nañ xam nañ ci sooboo ah kan looy tàggatoo sama gars yi kon ñun tàggu nañ leen ba beneen yoon seen actualité question réponse nii lañ ko bëgg a jàppoo ak yéen bu ko defee ngeen ànd ak ñun saa su nekk rek boo ko defee lépp loo xam ne rek euh, seeni xalaat la mu jëm ci lii nga xam ne moo di émission bi di actualité question réponse ngeen doon la ñu ay xalaat bu baax a baax a baax bu ko defee ñu ànd ak yéen ci question réponse bu baax a a baax a baax a baax kon nag gis ngeen ko question bi dafa jaar yoon voilà lu ci jaarul yoon rek commentaire yaa ngi fi abonné nag partagé seen commentaire voilà kan Ibrahima ñëwal nga tàggatoo voilà kon nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen ba beneen yoon ñun tàggatoo nañ waaw Ibrahima cant ak ngërëm ñeel na la wax dëgg yàlla question réponse bi macha allah jaar na yoon xel ak xalaat yéen ñi nga xam ni ay boroomi xel yu rafet ngeen yéen a ngi xalaat commentaire yaa ngi fi bu ko defee rek ñuy ànd ak yéen saa su nekk ci seen actualité question réponse mooy émission boo xam ne yaakaar naa ni neex na leen bu leen neexee commentaire yaa ngi fi kon nag yaakaar naa ne beneen yoon dinañ ñëwaat incha allah. ci seen actualité question réponse jaajëfal na leen abonné leen nag partagé leen sem leen commentaire leen ndax yaakaar naa ne euh, liggéey bi moom ñoo ko bokk voilà ñun ñëpp euh, benn la te lu gën a yaatal liggéey bi rek lañu soxla voilà yaakaar naa ne émission yaa ngi fi xam ngeen ko lu ci mel ni seen chronique ak lu ci mel ni voilà liy xew ci bis bi ak euh, lu ci mel ni gis-gis ak xalaat voilà émission yëpp nag nuroo lool waaye am njariñ lool nag wax dëgg yàlla ak émission bii nga xam ni mooy actualité question réponse ñu ci doon ànd ak Ibrahima kaaka ak sunu auditeurs yi ñuy topp saa su nekk wax dëgg yàlla de ñu ngi leen di jaajëf ba di jaajëfal nag Cheikh Lo vraiment Cheikh Lo Italie Cheikh Lo Italie nuyu nañ la bu baax jaajëfal nañ la vidéo bu ñu dugal macha allah da indi say commentaire te loolu lañ soxla nag vraiment waa di nuyu nag ñoom Mbaye Babacar Hollande Euh, sama gars yi nekk ci diaspora bi partout dans le monde ndax ñoo bokk diaspora bi jaajëfal nañ leen share na leen bu baax a baax ba beneen yoon ci seen actualité